ausbillahi mina seytaani rajiimi bisimilahi rahmaani rahiimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw benn sant yàlla julli ci yonent am ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye mën a nekk ñëw leen di jaar di leen ñaanal jàmm gudd fan wér xéwal yaar defaraat nag àllaaxira rawatina yéen ñi abonné ci Daaru Salaam Zibaw di wax Daaru Salaam Zibaw dana seet bu la seetee wax la sarax wala wax la sa càngaay foo mën a dem defi fa nga dem defi tey dañu andi nag li nga xam ne mooy suratul jinni lu baax la ci rab seytaane jinne ñett yëpp la dox rab saytaane jinne ñett yëpp la ci dox ni nga koy def nag mooy da ngay bind bopp saar wi baag ca yaqulu safihuna alallahi satatan satatan ci nga bamtu ko juróom-ñaari yoon kon ngay bind da ngay bind bismillaahi qul oohiya ilayya annahu astama nafarun min al-jinni fa qaalu inna samina qur'aanan ajaban yahdi ila rusdi fa amana bihi wala nusrika bi rabbina ahadan wa annahu taala jadd rabbina ma attaxasa saahibatan wala waladan wa annahu kaana yaqulu safihuna alallaahi nga yem foofu satatan bi ngay bind juróom-ñaari nga koy baamtal satatan satatan satatan satatan satatan satatan satatan muy juróom-ñaari yoon nga tëj ko salaatu ala bi boo paree nga bindal lii juróom-ñaari yoon lii da nga koy bind juróom lii nga ko bindee juróom-ñaari yoon ba pare nag nga dem wut ñetti doomi poftan bu dee jigéen la day wut ñetti doomi poftan waaye bu koy wut nag da koy dagg faatiha ak fallaxeeg naan ci doom ya bu paree mu andi boole ko juróom-ñaari li mu bind lii def ko ci siwo sangoo ko juróom-ñaari fan bu paree moom ku góor gi ñeenti doomi poftan lay bu dee jigéen gi ñetti doomi poftan lay wut waaye ku góor gi bu dee moom laa jëkk wax bu dee pare na ci day jël tànkam teg ko ci doomu poftan yooyu tànku ndeyjooram tamit la koy teg toj ne li ma jàppoon bàyyi ma banaa la dam mat ñeenti doom yu mat bu tojee nag bi yow nga xam ne danga koy defaraat ndax moom sa mbir dëgër na bu benn doom tojee ci biir ndox moom rek doo nga xam sa mbir dëgër na nga wutaat bu dee jigéen gi la moom day wut ñetti doomi poftan ginnaaw bi mu bindee li pare ñetti doom lay wut bu koy wut tamit da koy daggee faatiha ak fallax ak naas bu ko daggee indi ko def ko ci saawara si moom it sangoo ko juróom-ñaari fan bu pare mu génne ñetti doomi poftan yooyu teg tànkam càmmoñam da koy toj bu dee jigéen la toj ne li ma jàppoon bàyyi ma banaan moom it bu ci doom yi tojee ndax xam ne li affaire am dëgër na waaye ci kàttan suñu borom bu ko def suñu borom mën na laa jàppande bu dee rab la bu dee seytaane la bu dee jinne la mu tàggoo yow kon ñoo ngi baax a baax di leen ñaanal jàmm gudd fan wér xéewal yàlla defal attaque àlaxir wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh